salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar di leen waat di leen wax ne tey ñoo ngi fii baax ñi seet si benn xale xale bu mën a bëree nekk ci yoon ah foo ñu gisee fi ñu toog ne xam ne ñoo ngi dëkku lébu ñoo fii tey ci géej gi fekk fi ndaanaan dem naa këram fu nekk wër naa ko nag ñu ne moom ci ndox mi xam nga lébu daanaka day bëgg géej ñu ñëw fekk si Quench ma ñëw dugg ci gaal gi toog bëgg gaal gi dugg ci biir ndox mi mais gars dafa mel ni dañuy dañuy dañuy dallu sama cameraman ñoo ñu dem Quench di leen waxaat rek ñoo ngi seen émission ziar mbër ah seet si Quench moom dafa mel ni sax moo ngi nii nañ dem. salaamaaleykum. mbër nuyu naa la. fay naa la. ci loone. alhamdulilah. ñëw naa kër ga ñu ne ma est-ce que nekkul géej. waaw boobu day maay géej fii. Hmm. di xool gaal yi quoi. ok mais dama ñëw bëggoon jël gaal gi dugg ci biir ndox mi mais gars yi dafa mel dañoo pause. <laughs> waaw wax nga dëgg gars yi dañoo posé non instant yi moom gisoo ñii dañuy pariage sax pour dem géej nii. Ah, heure bii nii. waaw heure bii dañuy pariage pour dem géej quoi noonu la demee. Hmm. fii fii moom nu fi gars yi def dañuy ñëw pour fi la ñuy wàcc wala. non boo xoolee boo jëlee boo xoolee eh, tabax yu orange yi nii. Mhm. waaw moom moom yooyu moom mooy demin bi fii la maire yi di nekk di lakk jën quoi noonu la demee. Hmm. dama fa woon fii nii moom. waaw fii man ñun ñun li lañ xam quoi ñun moom ba fa dëgg yàlla bu dul bu dul bu dul bëre moom dem géej lañ xam xamaatuñu amuñu beneen métier bu dul géej quoi. noonu la demee man moom boo fa dëgg yàlla si lii laa xale ba màgg. bi ma demee daal ba xam ne dëkk bi fii daal si am nañ yaakaar si man su affaire de làmb si laa jël affaire yu géej tekk na le parce mu dem na ba mënul ànd ak sport bi moo tax mu bàyyi lépp concentré man daal toowaan ba toowaan laa xam ne si ma sama gars yi di njaaylu may soor ñëw dugg si gaal yi xam nga rek mooy loolu. mooy loolu. maanaam njaaylu bu ñu demee géej recette bu ñu mën a am rek maanaam xaalis bu ñu si mën a am dañu koy jël luwe si ay oto yóbbu ko toowaan togg si comprendre nga waaw gàmbu si daal dem foofu pour gàmbu loolu moo tax toowaan ba toowaan daal laa xam ne si laay dem géej mais bu weesoo loolu moom. samay soxla sax mënuma yóbbu géej. kon coïncidence su ma dégg wax ji coïncidence bàyyi na dugg géej fi mu toll nii. non bàyyi naa ko parce que tey boo dee mbër dëkk bi yaakaar si yow tal nga leneen est-ce que nga tëmba huit heures war a teer neuf si guddi wala war a teer six heures si ngoon muy dix-huit heures doo a boolee géej parce que boo teeree doo da ngay bi si géej moo gën a métti entraînement yi booy xool. huit heures suba ngeen xëy dugg ci biir géej gi ba neuf heures ci guddi. waaye déggoo li ma la tey kon tey gaal yi di dem nii. Mhm. ñoom exemple bu fekkee dañuy mbaali ji ay sangamaar ay ay ay sangamaar yooyu ay ay sornaa tey bu ñu tëmbee tey suba la ñuy teer ne loolu dafa métti. loolu mënut a ànd ak entraîneur sax. non non àndul àndul àndul. entraîneur dafa la entraîneur récupérer lekk. noonu la demee nag noonu la demee loolu moo tax mu ñu ñëw comprendre nga ñëw fii xam rek saa nag damay am ambition ñëw xool gaal yi. da nga koy namm. waaw dama koy namm quoi déggoo ma de bu yàlla defee jàmm sax mooy gën fi nekk bëgg naa ut benn sax. waaw ah. ah. kon amagoo ma dégg ne Quench am na fi ay gaal yu bëri. non non dama amuma gaal amaguma gaal parce que dama bëgg a wut gaal boo xam ne dinaa mën a may samay xarit ay ndawal yooyu bu ma jàppee jën di may ay ndawal sama xarit yi ku mel ni Grand Moussa Gueye ku mel ni Bekay Mbaye comprendre nga Père As Gueye comprendre nga ñi nga xam ne daal dañuy sonn si man benn nga bu ma limee sax damay juum ñi nga xam ne wóor naa bu ma amee bés cëb rek ku mel ni Amady Gueye xam ne ay biraan ñooy bu ma amee bés dañuy ñëw teew si ñu mel noonu nag tey bu ma amoon gaal amaana bu ma jàppee jën dinaa mën a yóbbul ku ne ndawal loolu moo tax rek ma bëgg a gaal waa noonu la dem mbokk yi ma fàttali leen ko Quench Diène Kaïré la mujjee bëyal arène nationale ci dégg jour combat Reug ak Gris ñu mag si niin ma bàyyi ko mu fàttali leen kan mooy Quench Quench sa palmarès naka la demee waaw Quench benn ndaw la rek waaw ndaw bu ndaw la benn ndaw boo xam ne mu ngi fii di góorgóorlu suma palmarès am naa treize combats douze huit treize combats douze treize douze victoire benn masandiin noonu la demee. kon Quench amul defet. non aw ma defet am naa defet sama premier combat. quatorzième combat bi mooy sama combat Diène Kairé noonu la demee am naa douze victoire benn défaite benn masandiin noonu la demee sama masandiin mooy sama combat Diène léegi dafa mel ni war nañoo mën a dem kër ga toog waxtaan gën ko yaatal ma yàq sa sa jotaay ci biir géej gi. waaw mais c'est normal instant moom xool naa fi li may xool waaw instant moom soulagé wu naa te géej day yokk xel tamit loolu moom ñun fii lay ñëw pour inspiré wu comprendre nga bu dul dara tamit boo avancé si kanam na de foofu laa doon entraîné comprendre nga tey tamit ay ndaw lañ daal en tout cas ñëw nga fekk ma géej fu ma fu ma bëgg fu ma ne foo xam ne moom laa xam comprendre nga kër gi nag day sori dañuy dem sama benn kër copain kon nga dañuy ñaanal foofu papaam ñu toog waxtaanee ko comprendre nga ñu yaatal quoi. waaw na kon mën nañoo dox dem. mën nañoo dox dem. ay jëmbër jaajëf. jën moom lañ yaakaar bu géej gi tëjee moom jàppal na ne dëkk bi fen doxul ñun moom géej la ñu xam amaana am nañu nekk si kaw di góorgóorlu mais tey dëkk bi buñ bu population bi doonee maanaam bu ñu doonoon mille et quelque wala deux mille et quelque mhm. mille cent yi dañ ci lii la ñu am géej comprendre nga moo tax ñun tamit géej moo ñu gën a luñ mën a am parce que si la ñuy surtout suturloo daal noon la mën a demee si la ñuy suturloo moo tax tamit maire yi si lañ jël fii monsieur le maire Mar Diouf ma koy nuyu passage moo fi tabaxal li maire yi tamit comprendre nga bi mu ko fi tabaxee tamit ñu ko siy gërëm parce que amuñu ko woon maire yi dañ loon lakkan ni rek mais après yàlla dogal na tabax nañ leen benn demin boo xam ne tey kon maanaam saxaar see ñuy gis ci la bokk. waaw déggoo li ma la boo gisee nag muy saxaar jàppal ne jën am na mais bu saxaarul rek jën amul quoi noonu la demee saxaar si nag day déranger mais moom ñun moo ñuy dundal quoi. saxaar si déranger saxaar parce que day ñëw nekk si nit ñi comprendre mais loolu mooy moo ñuy dundal boo gisee saxaar si sonoon ñu rek jàppal ne dëkk bi am na xaalis mais boo gisee dëkk bi saxaaratul neen dëkk bi amul xaalis baa ñu tey am na xaalis yaakaar naa tey war naa mën a yóbbaale dara. non non tey bu fekkoon ne taal nañu yow doo gis lii sax day saxaar carrément moo tax tamit c'est normal nii lañ la mën a def waaw day saxaar bu baax da tey moom. bu dee nag ku mel ni yow xamoo fi boo ñëwee da nga mais mais ñi ñu ngi déranger <laughs> fekk ñun moo ñuy dundal saxaar boobu tey yàlla mu ngi siy dimbali suñuy yaay yi suñuy maam yi si lii la ñuy sudurloo tey boo demoon fii di nga fa fekk ki nga xam ne moo jur suma paap. Mhm. comprendre nga lii la xam tey boo ko doon tere da nga koy sonal rek. amaana même bu si doon boo si doonul bu si amul dara sax da nga koy sonal parce que ñun lii la ñu xam tey sama yaay même chose comprendre nga boo leen si jéemee jëlee tamit da ngay xëccoo ñoom rek parce que moom la ñu xam. da nga judd fekk nit ak li mu tàmm wala nit ak li mu miin. te koo fi day mujjee màgget. Mhm. am na suma maam boo xam ne kii jur suma yaay si lii la doon yëngu mais après dem ba si biir ñu ne ko daal yow mag nga mënatoo dem mais instant yi ngi toog resté mais bu doon dem ba tey ba tey mu ngi génne di doxantu waaw mooy loolu quoi. noonu la fi léegi ñu yegg ci kër gi. tamit waaw léegi ñu yegg ma koy ñaanal sama maam yee sama xarit yee su may fansee ñëpp yàlla bàyyi leen suñu kanam bu baax a baax ñi nga xam ne tamit ñoo ñu jiitu yàlla xaare leen àjjanay fi taw si góor gi ma jëm nii tamit këram muy père Pape Diop ma koy wax ne ne yal na yàlla xaare àjjanay fi taw si ba njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg si loxo parce que ñun ñun lii lañ xam daal lii lañ xam lii ñun géej lañu xam te moom la ñuy mas a xam tamit. waaw baax ñu dox dem toog yeggali waxtaan bi. may profité di nuyu sama boy di leen siyaar bu wér di leen wax <laughs> nañ géej ñoo ngi fii ci kër gi. waaw waaw ñëw nañ ci kër gi fii sama benn kër copain la Mathière ma koy nuyu passage di nuyu suma fan si club bi ne jëm ñaar yoo xam ne moom moo ko taxawal quoi noonu la demee mu doon suma waay suma xarit comprendre nga. man a su ma yëf nag man si sonn comprendre tey ñuy ñaanal papaam ma am plaisir pour ñëw defee fi émission bi comprendre nga ngeen ma ñëw si seen kër nag mu doon lu may neex trop buñ ko tourné woon géej rek du am sens mais sant yàlla bi ngeen ñëwee fii buñ tourné ko fi parce que nit koo xam ne dafa mën a sonn samay affaire la te du du sama cent franc yu muy lekk si man comprendre nga loolu yombul. ñi nga jot a bëreel mën naa ci dellu si nga limal ma leen. waa ñi ma jot a bëreel waaw mën naa leen lim ñoom ñëpp mais dégg amaana sax bu ñu fi nekkee di lim mën na yem si émission bi parce que tey bëri naa suma premier combat bëri naa à Drogba comprendre man nag ñi may bëreel damay fàtte damay jekki saa di fàtte. ñu naan waaw limal ma ñi ci ñi ci kaw ñi nga xamante ne ñi ci kaw ñoom Paul Maurice jàpp jëm ci kaw. waa mën naa la limal sax combat yëpp comprendre mais xam naa émission bi fi yem mooy bëri naa Paul Maurice bëri naa Tafa Gueye 2 bëri naa Alioune Seye comprendre nga Diène Kairé bëri naa Papis général comprendre bëri naa Sopay Galas mbis mbis bi boo ñaa daanoon bëri naa Drogba bëri naa Boy Caara yi bëri naa ah, Alpha Kayta da ngay da sax parce que man moom mooy li may wax émission wu sax du ma ko seetaan boo ko bu ma ko waxee sax du ma gëm man budul budul ay bantamba jongante yooyu ah émission Père Ousmane mhm. yooyu ñoo may tax a seetaan làmb mais bu yooyu weesoo man estat sax boo leen xool doo leen ma fa gis. lu tax loolu nga bokk ci làmb noppi doo seetaan làmb wala boog doo dem ci làmb lu bëri. lu tax loolu parce que dama bëgg gën a cher parce làmb ji tey am na cër boo xam ne maa ngi fa a mhm. tegu mais kon dem estat tey mbër moo xam ne waroo leen bëre mu ñëw far ji ngeen di jëlañante di dóorante ñu boole loon ñoom ñaar ñëpp yéen ñaar ñëpp la ñuy boole aj leen CNG tamit loolu war na si def ay war na si xool quoi. mais dëkkante daa bokk ci làmb. waaw bokk na si làmb imagine nga dëkk ma ma nga yëkkati samay say loxo ma yëkkati sumay loxo loolu dafa rafet mais bu ñu demee bay dëkkante di dóorante. wala di ba ma xante fii sottante di sottante ay suuf mais image boobu rafetul ci làmb. mais imagine ngay ñëw tuus ma ñëw far la tàllal sama ñaari loxo loolu dafa rafet mais nu ñëw waruñu bëre sax mais ngay dóorante man pour ut si loo wax wala ut si buzz mais loolu bu la si ràccaag ma toog suma kër parce que lii promoteur yi di seet am naa ko muy mbooloo lii euh, la mbër di soxla am naa ka muy lan maa ngi entraîné fu ma si ma ko dinañ na macha allah comprendre nga kon loolu yëpp tey bu ma si nekkee ni nekk suma entraînement bu ma naree dem stade ñu may aj sawaay ma ñëw toog fii wala ma dem génn ji àll ba bëre ji noonu lay demee kese. du la daal mbër noowul la du dem lamb lu bàyyi day toog. est-ce que promoteur yaa ngi lay contact waaw du mbëru noobal sax parce que tey yi ngay gis ni Quench la suturaal na ko si làmba d'accord suturaal na ma si bu baax mais maa ngi siy dund tamit ay coono. comprends nga parce que. coono yi comme yoon comme yoon coono. ngee lu dul jee te sutura rek ngay demee comprends nga dund moo tax tey dama na bu ma amee doom bu doonee doon mbër. xanaa day jël suma bakken bu pare wala ma jël bosam ñu soo mu doon bër. lu parce que bëri dafa metti d'accord que man lu ma am làmb moo ma ko may. comprendre nga dem naa fi ba Espagne demaat mais damay toll foo xam ne dama naan waa man la laa doon doonee mbër. la moo la yóbbuwoon foofu. waaw dama demoon pour entraîner ji parce que avant sama combat jéen kere taxaw dem naa combat bi taxaw ma ñibbise dem dolliwaat entraînement comprendre nga mais da nga siy dund ay coono yoo xam ne saa da ngay ñëw def kon lu mel nii sax te see nit mu mere la mais da ngay xam ne ne mooy loolu dafa metti. kon bu démb doon tey doo dugg ci làmb. déggoo non ma li ma doonee mbër tey ay waxam laa doon bañ mu na saay nekk naa ndaw mu téye suma bopp naa ay doomam yëpp jarul ngeen di sonn mbër bi mu ngi nii te boobu yàlla mayuma mayu ma doole comprendre nga tollu ma nen te boobu samay papa yu ndaw sama mag moo doon bëre sama taaw yaay muy lanceur ma koy nuyu passage comprendre nga di ko ñaana lii mu jublu muy géej gi yàlla defal si jàmm defal ko si suturo comprendre nga bi mu waxee loolu ay waxam yooyu laa doon bañ mu niil moo tax chaque jour may reyante pour la mu waxoon ne mbër baa ngi nii ma sut pour loolu. mottali ko bañ a réer quoi. noonu la demee tey mu ngi si suuf ma ngay ñaanal yàlla xaaral kaa jëndee fi taw si koo xam ne ku ma mos a laal rek laal nga ka dama ne bu fi newoon ba tey dof doon. parce que dana maan bul dem géej ñëwal nga toog lu seen gaal naroo ñëwal wax ma ma ràmbu sele ka comme naa boo mu ngi yor benn fas jox ma ko mu ne ma loo liggéey si fas bi jëlal lu ma liggéey maa moom na fas bi lekk ba suur rek saa da doon toog géej sax may tubb suuf bu ma tubbee suuf bu ma amee dix voyages bu ñëwee na ma ñaata nga am ma ne ko noo ñett laa am mu ne ma noo dix nga am maa ngi loon wàñña comprendre nga si maam bu bëggee noonu setam na ma soxla ama xaalis bi ngay liggéey loo liggéey jëlal mais xam nga boo nekkee si ndaw rek di nga waaw di nga dëng dama daan ànd ay mooy loolu ñu ne kii waroo ànd ak ñii kii boo leen moom da di yàq mais tey sant yàlla yàlla suturaal na ma làmba defar ma ba yar ma ba ma mën a tegu fu ma romb ñëpp na waaw macha ku ne bëgg na ma jur tey. ñu dellu si waat ci làmb la moo tax Quench dëkk baa dem ba Lansar di entraîné foofu. waaw parce que tey mooy li ma wax rek tey nekk naa bar ñi bi ma fi nekk tey samay moroom laa fi nekkal yàlla dimbali na ma ba dem naa ba tollox ñoom kantan comprendre nga pour ma dugg si làmb sori si làmb foog ma dem uti ñu ma ëpp poids comprendre nga loolu moo ma yóbbu ñu ma mën a conditionné teg ma si yoon staff parce que boobu ba ñu amul écurie. Tëngéej. boobu Tëngéej am na écurie. ndax demuloo Tëngéej nga wëm Tëngéej dem ba Lansar. waa parce que jamono jooyu xelu xale moo ñu jàpp parce que instant boobu ñu doon bëree waa Tëngéej man sama premier combat 10 000 problème laa ko bëreel te Tëngéej la dëkk. comprendre nga boobu xelu xale jàpp nañ mais sant yàlla tey ñoom bu ñu amee combat ñu ngi fiy ñëw ñoom bu ñu amee combat ñu ngi dem di leen jàppale may nuyu gàmbuga yi di nuyu Baye ñoom ñi xam ne ñoo fa am combat comprendre nga si ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa am komba ma leen di féliciter di leen wax yàlla may leen ndam. Gamou Gueye am na combat bu neex. Mhm. moog Sokh. waaw ma koy ñaanal ndam combat boobu ñu si dara luñ si xalaat. Sokh meen am ñu Gueye amuñu si dara luñ ciy xalaat. déggoo ma de sa Gamou Gueye bu dee bëree ma. Seydina Jadli Jadli nee na moo ko conseillé mu jël Gamou Gueye. waaw c'est normal Jadli moom buggoon na Gamou Gueye mënu ko woon jot. c'est normal Jadli meen. waaw bëggoon na Gamou Gueye mënu ko jot parce que. mais ñoom leen seet naa ngeen singili lebu yi. waaw mais c'est normal instant yi ñaari ñaari lii ñoo fi am Pikine Géejawaay lébu yi ñoo fiy làmb. waaw li nga wax ana waa Parcelles waa Parcelles ñooy roi des arènes. mooy li ma wax rek mooy banlieue bi. làmb ji mu nga banlieue Pikine Géejawaay Parcelles maanaam côté yooyu li si des caara yi la comprendre nga phase ñoom ñëpp kuy bëre Parcelles ngay singali wala Géejawaay wala Pikine ñoom tamit bu ñuy ut ay si ñun la ñuy ñëw noonu la rek du leneen waa Pikine ñu bëre seen biir dañuy daw géejawaay ñëw foofu pour bëree waa géejawaay waa parcelle dañuy bëree waa géejawaay di bëree waa Pikine noonu lay demee ñun waa Pikine la ñuy bëreel wala waa Pikine bëree ñun kese wala géejawaay wala parcelle comme naan noonu la rek. loo seq ak mbëru tëngee ji. mbëru tëngee ji waa jàmm laa seq ak ñoom a relation yu rafet ak mbok tamit mooy loolu. loolu laa seq ak ñoom yaa ngi demalante ak ñoom dikkalante ak ñoom. ñu ngi demalante di dikkalante am na nu muy demee saa bu saison bi tëjee ñoom seen seen écurie dañuy ñëw fu balaa ah, suñu écurie bi mais yàlla dogal na ñaari benn bi dañ bi ñëwee bar ñi dañ niil ñu dem Tëngéej door leen. waaw ah. a gagné ñoo gagné bi ñëwee bar ñi dañ niil 2-2 ñu dem Tëngéej door leen 3-2 waaw noonu la. ma dellu sa combat yaa ak Diène. lan moo tax ngeen ñëw ku ci nekk téye boppam. waaw parce que tey ku si nekk danga nga màgg si làmb mooy màgg si làmb bi mooy lan préparer sa komba ñëw ñu yeb la conseil la ku ne téye boppam du lu neex làmb du lu neex amateurs yi ma ngay ma ngay ma ngay métitlu si côté amateurs yi parce que bëggeewuñu ko woon noonu ñaare xaral lañ ku ne yeb nañ la man liñ ma yeb mooy que naa respecté ñi may li yeb ndax ay mag lañ noonu lañ ma doon yebee may am ndam te yebee nañ ma ko ma niil dama kaa sant yàlla jéen keere tamit papaam ma indi lu ko papaam def loolu loolu lay def merew ma ko si côté boobu tamit maa ngi siyaar bu wér merew ma ko si côté boobu dama xam ne ne ndigal lay wooyee man ma wooyee ndigal ñu niil mais tey ku si ne xam na ne bu ñu bëriwaatee mënul demee noonu. parce que loolu. ku si ne nga xam ne lañ la yebee di nga toll moment boo xam ne yaay pare jël say responsabilité moom nanguwul jël risque man nanguwuma jël risque. mais loolu lu tax bëriwaale woon ko avant premier combat bi. waaw mais doo ko bàyyi xel da man dama jàpp ne jéen kere parce que am na lu mu ma nee na ma damay jox tànkaam ba ma doyel damay may ma jàpp fu nga ne. mais loolu waxi mbër la woon. waaw waxi mbër la deuxième partie bi ay fansam ay ay entraîneur ñëpp ay coach sam mu ngi si internet yi dañ na Diène Kairé bu dumul Quench lu ah mënatuñu wax si làmb dañ na Diène Kairé damay duma ñi mañ nañ si teg lu ñu am. dañoo waxoon loolu. waaw benn benn papaam la yaakaar naa ah, benn papaam nee na bu fekkee dañuy teg nañ ñëw teg ñu teg suñu reliquat ñu signé ak CNG yaakaar naa kii nga waxoon benn papaam la bu dul papaam tamit entraîneur am la comprendre nga turam sax moo may xaw a réer mais jàppoon naa turam. comprendre nga ba si may nuyu tamit suñu artiste bi <laughs> muy Alas Kayta tamit moom sax ndeysaan waxoon na si waa Medina la nee na sa dañ koy jàpp bu mu dëggee tekk na le ndeysaan xam naa boobu rek jàpp nañ ne dañuy ñëw dox sama maayin te jéen keere fu ma ko yebalowul mënu ma fa yóbbu fu ma ko yónniwul moom mënu ma fa yóbbu est-ce que xam ngeen c'est normal nañu amateur yi te xam ne ne Modou Lo niil na fi Eumeu Sène niil na fi. non mais ñoom dañoo bëri ba niil mais yéen ñaar da ngeen taxaw di lóotoo ba làmb ji jeex. mais ay avertissement lañ doon am ñoo tamit même chose ay lañ doon am kese du leneen ay avertissement lañ doon am ñii ay avertissement lañ doon am déggoo ma de Yékini sax niil na fi comprendre nga te mooy woon la roi des te Yékini ñu ngi lay woo di la waaw moom man moom wax fa dëgg yàlla du ma woo benn promoteur parce que lii promoteur yi di soxla mu ngi si man mooy am naa mbooloo ku ma tëggal combat. fay ma bu ñu calculer li nga may fay kon ay 1 million nga may fay booy xool parce que tey su may fan ñëpp dañuy ñëw jënd ticket yi comprendre may nuyu Sarla di ka di ka nuyuwaat suma grand suma pap muy Sarla Faye bu TFM li may wax moom rek moo ko mën a seede tëggal nañ ma combat ma ne sama reliquat bépp nañ ma ko jox ay ticket ma ñëw may ko samay fan sa yëpp si site internet laay waxee jëndee naa ko 2000 bu ma ko xaajee du mat ma jaalee nga 1000 francs pour perdre 1000 lépp pour bëgg a. waaw jël naa 3 millions ay billets jaay leen min 1000 mu génne ñu jëlaat 3 millions jëndaat kay billets jaayaat ko 1000 francs dem na ba 500000 lañ ci mujjee amaat ñu perte presque ay 2 millions 500. comprendre lépp ci bëgg a taal bés parce que instant boobu géej gi dëgër na booy amuñuy paas. damaa gis sama benn xarit sax muy signal ma koy nuyu passage di ko wax ne ne pour fan see yeneen ñu comprendre ma tamit parce que ça da ngay tudd benn fan sa rek nga gis kune ne bëgg a yaakaar mooy loolu signal dafa def lu ma yéem mooy que dafa yor benn 2000 ci kufaam na ma si benn sabam na ma 2000 mu ne ma mukk wóolu ma say wax parce que jour combat du ma la jot mais xam nga ne kooku boon dafa dee si yow 2000 bi ma ko wanee sax mu ngi yàqu mun ne du génne fii jour stade la koy génne. comprends nga si ko xam ne tey joxoo ko mu lekk joxoo mu naan mu yor benn 2000 xañ boppam ndekki xëy ka ay comprendre ay soxla boppam lépp pour bëgg a dem esat si laa na nag image boobu moo tax ma jël samay reliquat jënd ko ay billets perte si bi mooy suma combat Tapha Gueye 2. waaw man benn nit moo mos a may ay billets ma koy waxaat fii benn nit moo mos a may ay billets muy Mamadou Sy bu Tingéej moo ma may ay billets bi passé te mu ma jënd dana ma billet ñaar lay jar ma ne ko 3000 mu ne ma dinaa jënd 100 billets mu jënd ko jox ma bu ma ko xaajee dina indi coow. ma jël ko jox ko sam benn xarit mu yóbbu ko stade maam as après sax dañ ko jàpp dañ yaakaaroon ne day trafiqué ñu jàpp ka yóbbu ko noonu la presque lu bëri dama kaa perte est-ce que. indi amu leen ku leen jàppale fii. ah jàppale bi moom bu amee tamit des na quoi bu amee des na lu bëri xamaa na di ngeen a eh, jàppale bi parce que tey bu fekkee say combat da ngay préparé di si def ay 6 millions wala ay 5 millions et tey liñ lay jàppalee boo ko dajalee ma dul un million day métti. ngeen wàcc combat di def ay million yu toll noonu. waaw mais c'est normal normal parce que tey ji ngay gis nii da ngay xool boo amee combat ñu date nga neuf mois chaque jour nga lekk trois mille. xam ñu ñun mën nañ cee xam dara mais ñi ñuy seetaan moo tax ma leen koy leeralal fii tey nga am combat ñu fay la exemple na la fay nañ la dix millions. nga koy préparer neuf mois chaque jour nga jaay junni wala chaque jour nga jaay trois mille boo ko calculé ñaara sa ay paas lamsaar saal chaque jour saal laay entraîné tëngeej yooyu bokku si comprendre nga teg si nga yor ay nag déggoo ma de yor ay pigeon di dund comprendre nga. mbéy lu tax ñu bëgg ay élevé élevage. waaw parce que si moom man moom yar moom xam naa ne jaayu moom comprendre nga waaw sama champion bi moo nekk noonu kii moo tax ma dugg si làmb mooy suma taaw yaay. comprendre nga moom moo dugal si làmb quoi moom laa doon nuyu nii passage di ko wax géej gi li mu si yëngu moo ko xam yàlla defal ko quoi comprendre nga si moom laa tammee bëre parce que moom ma doon jël di ma yóbbee saat ba yàlla def si di mbër bi yeewu ma dem di bëri ji mais yar bi ma yar moom ji di yaruma si pour jaay dama ko yar ngir plaisir. di ko xool ma amee problème ñëw toog ci pigeon yi wala nag yi dinaa soulager ba mu métti waykat déglu Wally pour soulager wu noonu la demee. yan yan adversaire lañ lay proposé. échange bi nag propos man maay tànn adversaire échange yi parce que maanaam bu ma amee Modou Anta wala Yékini Junior wala Garga Mbossé dinaa bëri man maa ciblé Yékini Junior wala Garga Mbossé sono xam naa ne moom Yékini Modou Anta moom dinaa na dina na sonol naa ko lool mais Baye Fall gi muy woote bu fekkee mu ngi si moom na lekk suma avancé ñu yeggali. kase parce que moom taalibe sëñ Saliou Fall la dama lay ñaan si barke Serigne Saliou faal nga jël sama avance kase. damay jógee Parcelles di ñëw ma am ñu ma yóbbante waale. muy Moussa Dioum. non Moussa Dioum moo bëggoon a bëree moom daaw lay bëree moom. parce que tey man damaa doyal si maanaam ngay bëree nit dañuy nekk sax si ay côte nekk si ay Papis Général bi may bëree moom mosul daanu. loolu am na. comprendre nga da bëree moom bëre ñu ne paa la est-ce que loolu daf may déranger. ñu ne waa déet Tafa Gueye 2 bi may bëree moom dafa daan marle kii armée loolu moo waral ñu bëre mais bu ko armée daanoon fa lay génnee làmb comprendre nga ñu bëre ma daan ka ñu ne paa la boole ma ko sax sama carrière parce que man suma fan sa la Tafa Gueye 2 bu doon bàkk rek damay kontaan Paul Maurice bi ma koy daan dafa jël jokel daan ka daan fi sàkkal bu mbuur moom moo ma may chance Paul Maurice moo ma may chance pour bëree man ma daan ka ñu ne mais est ce que du ma dem jëli ji su ma xam ne ñoom la ñuy wax ay grand lañ ci làmb ji. ku mel ni Modou Anta parce que dañ na Baye Fall la dafa naxaree bëreel. sa combat ak moom day neex sax. loolu moo ma teree nelaw boo gisee ma bëgg a bëri moom man les deux bu ma bëggoon a bëri moom bëri naa moom mais xam la laay daw liñ naan paa la Modou kii. non les deux du paa yow Garga Mbossé mi nga les deux moo daan moo les deux moo bëri nañ niil comprendre nga ñu ne Coense bu ñu ko joxee ay morom amaana mën na am problème non Diène Kairé kenn mosu ko xamee bëre di taxaw comprendre arbitre bi bi daan fir mu fekk la foo taxaw loolu moo ma ne man maanaam mu duma woon moom loolu moo ma neexoon ci combat mu ñëw pour duma moom comprendre nga. ñëpp ñëpp nee nañ kii kon nu mu tuddee ci Diène su xeexoon ak yow da ngay daw sàcc ko loolu tax mu téye boppam ci làmb. waaw mais bon na jàngi bëre bu fekkee bu xeexee man dañ koy sàcc mais ñi mu doon bëreel ay Boy Baol ay Marley comprendre ay Koña ñooñu ñëpp ay xeexkat lañ. wala déet da leen fekk fi ñu taxaw manipuler leen nu mu ko neexee jàppaleen daan leen mais ku daan ñooñu boo ja jàppee Coins xanaa war nga ñëw manipuler ko si sama yaakaar def ka liñ nga ko bëgg a def dem sa yoon. Ama Baldé sax maa ngi siy dégg ma koy nuyu passage mu ne Diène Kairé dafa waroon def li mu war a def déggoo ma de moom Ama Baldé sax bu ñëwoon def li mu war a def moom li mu doon digal Diène Kairé bu ko ñëwoon def ko ma jàpp ko daan ko. moom moom Ama Baldé <laughs> ma de parce que gis na ne doomu mbër la day dox si kaw nit ñi. déggoo ma de. moom noonu la jën war a doxee nee na noonu la jën waroon doxee mais bu doxoon noonu moom Ama Balde sax dina am lu ko si béykat moom. nga ne Ama Balde. waaw dama na moom ni mu doon digal jën kere moom bu ñëwoon sax da ciy am lu ko béykat te bu jën kere woon loolu moom dina na yee mosuma xam la si coins déggoo ma de man damaa mën a attaqué man nga attaqué ma. damaa mën a attaqué man nga attaqué ma faalewu ma mbër pied bu mu tegax bu mu tegul boo teg damay bëri. déggoo li nga wax daal maanaam su Ama Baldé taxawoon jëfee loolu. dina gis leneen lu mu yaakaar dina gis lu dina gis leneen lu ko bett. dina na mosuma xam ne ne booy bii nii la mel non non de weera ay ay am na yenn séew yu koy topp weerante nañ si loolu tuwaawan ba tas ba ñu bëgg ma songa foofu. Eh. waaw ñu ne ma da ngay ñëw tafesu caara yi ñu bëre foofu ma ne leen ba tey dafa jege Pikine dañuy ñëw tafesu mbaaw fii xam ne jegewul Pikine jegewul Bargny ma jàpp ba Baldé jàngal ko bëre si tefes gi. gis naa benn promoteur bu ne bëgg na taxawal sa combat yaa ak waa déggoo li ma la Garga moom mooy li ma rek fii kenn raw fi kenn ñun ñëpp ay naataangoo lañu amuñu kenn ku fi mën a taxaw ne. kooku kay nee na bu sa accord léegi mu woo la. waa déggoo li ma la xanaa mënuma taxaw ne Garga 2 maa nga raw wala moo ma raw amaana sax ñi mu bëre bëre ma ñoom dama kay nangul bu mu mët sax mais déggoo li ma la mooy li ma la wax sànq si njëlbeenu wax bi nee naa la. tey ku ma fi bëree rek dañ naan cam waaye man xamal lan moo laa bëgg mooy combat sox ku ni Modou Anta Garga 2 mënuma ko raw mënuma ko bañ waxuma pour waxu bañ a bëree moom mënuma ko raw mënuma ko bañ gënuma ko palmarès mais dama na bu ma amoon Modou Anta moo may teree nelaw ñoom amaana ñoom ñoo may sibile maanaam Garga 2 dañu war a bëre su ma naataangoo la su ma adversaire man promoteur bi moom waa déggoo li ma la man mbër bu ñu ma seetee waxuma la Garga de mbër bu ñu ma seetee fay ma lu ko jar ma bëree moom. waxuma la bu lu promoteur bi seetee fay lu ba. déggoo ma la non damaa mu leer ndax xam naa ne moom dina ma seetaan. parce que tey mbër boo fi taxaw sibile ka mu ne da nga ko pare man ñaari ñetti mbër laa sibile man mooy Moodu Anta Garga Mbossé Yékini Junior mais ñii ma ciblé bare ñoom ñi nga xam ne ñoo bëgg a bëree man bare nañ déggoo ma de mais. Moussa Ndoye tax boole woo ko ci. ah Moussa Ndoye. Moussa Ndoye bu yara. waaw non du ma ko si non du ma ko si boole. waaw non lan moo tax yaag Moussa Ndoye combat bu neex la. waaw non moo tax. yaag Moussa Ndoye yaag Modou Anta man loo ñaar yooyu ñoo ma dàqal. waaw ba tey déggoo li ma la ba tey déggoo ma ne la Moussa Ndoye. lu tax doo ko ci boole la. non du ma ko boole su ma la. du ngeen bëree ñaar. non su ma mbokk lébu la. non du ngeen bëree waaw wala déet. waaw moo tax ma ne la su ma mbokk lébu la pour ñu passé passe boobu parce que buñ ciy waa di si waat day yàggal émission bi noonu la demee. yow laa fi mu toll nii Modou Anta daal boo ko amee mooy li la. ma teree nelaw kon Garga 2 man Coense mën na ko teree nelaw pour am Coense mais man Moodu Anta moo ma teree nelaw comprendre nga da ngay gis tey da ngay gis waa si tere dé double moto dégg muy wax wax naa ko lancé naa ay message ay yoon yoon nee naa ko ba ñu ma bëree moom Garga 2 ba ñu ma bëree moom keneen ak keneen euh, même jen keere ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ne si làmb te làmb boole ñu bëri ma ñu ma bëree ñoom kuñ ma si fay lu ko jar ma jël la bare yow mais mbir mi newul foofu man laa wax man. bu may tànn man li ma bëgg mooy Modou Anta Yékini Junior Garga Mbossé damaa maîtriser sa seen tur bokk <laughs> dégg nga ma ne buñ ma tegaloon ab teg sama rab si. Hmm. Modou Anta Yékini Junior Garga Mbossé. fi mu doon daal ñii ñoo la tey na ñooñu laa xam ne kenn ku ma si am baax na. commencé nga waaw yàgg na temps yëpp ñu ngi doon contact parce que bii Abou Ndiassé moo fa amoon combat. moom Tafa Gueye waaw temps yëpp ñu ngi doon contact. avant loolu nag lañ dala contact Mama Lamine ah buur si kii Maama Lamine ku mu doon bëril combat waaw Jokal Maama Lamine Jokal yooyu yëpp comprendre nga yi nga xam ne passé na avant loolu ba tey ñu ngi kontaan. Hmm. est-ce que Quench xelam ma ngi ci mu dellu si fii ñëw ndax boo xoolee baat ñi ak Lansa xaw na sooyantu est-ce que Quench ngi mu dellu si fii créé fi écurie wala bokk bokk ci écurie bi fi nekk. non fii am na écurie xanaa si ñëw nekk si écurie bi topp si ginnaaw booy yi comprendre si tey booy ma fekk ma ñëw topp seen nekk seen kanam damay ñëw topp seen gannaaw comprendre nga bu loolu weesoo su ma xel man aw ma lu ëpp bari ñi fii laa am fii laa am fii laa am lu ma am si làmba fii moo ma ko may comprendre nga lu dul bari ñi aw ma ko amaana nag dëkk lébu yi dañuy sot parce que lu tax lébu laa deret ji mooy loolu mais man aw ma lu ëpp bari ñi aw ma lu gën bari ñi bari ñi mooy suma base bari ñi laa am fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee bu dee tukki maa ngi fi dem Gambie Espagne weesu comprendre nga yeneen dëkk mosuma fa dem kon lu mu mën a weesu mooy Bargny lu ma fi mën a am fii la comprendre nga tey bu ma yàlla dimbali woon ma am moyen dinaa ut entraîneur boo xam ne dama koy fay dinaa ut coach dinaa ut koo xam ne préparateur physique mais moyen amu fi. mais kon pare nga pour dellu si fii sa dëkk. pare naa pour dellu suma dëkk ibi fi igri comprendre nga mais écurie bi fii am na écurie mais tey da ngay xool bu ñuy def ba ñuy renouveler récépissé écurie bi mbëri ñooy natta sax di ko def loolu loolu tawul cointre ñëw nañu waxante dëgg daanaka nag bari ñu ngi fi di bëre bari ñi tey dama jàpp ne ne ñoom bëre maanaam cointre moom buy bëre dëkk bi da ngay yaakaar ne sax nit ñi da naan fii lan la parce que nit ñi ñoom ñoo ma toll foofu. kon maanaam waaw su ma dégg wax su ngeen amee jàppale. am taxawaay bu mat. Quench fii am na ñu daax a bëre Quench ñu ngi fi ñu daax a bëre Quench ñu ngi fi ay booy yu am talent ñu ngi fi mais tey dañuy dem géej saa tamit may lancé appel di wax ne ne mbër yi nga xam ne dañuy tubba nit ñi ñu bàyyi leen ñu jël seen wërsëg parce que mbër mu si tubbal doo lekk parce que côté boobu lañ mën a daax seen wërsëg pour am lu ñu yóbbu seen kër. tibb ay jën comprendre nga si lañ mën a daax seen wërsëg. am si duñ yóbbu seen kër ñii si mën a jënd terrain jënd si terrain comprends nga parce que làmb joo xam ne tey dañ lay fay deux cent mille wala cent mille bu paree nga jëlaat trois cent mille dolliwaat ko si say mbokk ak ñiy dëbbal taxale fii dolli si sa combat lekk presque cinq cent mille boo xam ne tey da dem am si ndam boo xam ne du la yóbbu fenn sax. noo gisee làmb ji fi mu toll nii léegi làmb ji tijji ak léegi benn combat bu mag lañ fi gis mu taxaw. waaw parce que loolu yëpp mooy promoteur yi rek. promoteur yi ku si ne yaay xool la jaral lañ nga def. damaa dem stade ma dem seet ñoom bu géwél euh, Ousmane ñëpp ñu ne mbëri ñoo war a wàññi kese yi. waaw gis nga mbëri ñoo war a wàññi kese yi ku si ne xam nga li ngay jar te am na mbër yu mag yoo xam ne boo leen fayoon quatre-vingts millions tamit bëri loo ñu dañuy bëri def ko si combat bi mbëri bu ñu wóoree ni ne bi dañ ciy am trois combats koo si fekk fay ko soixante mu bëri bu ñu wóoree ne ñoom dañuy am lii combat si année bi trois fois koo si seet sa fay ka 60 millions mu bëreel la mais yow da lay wóor ne ni man benn combat laa mën a bëre si année bi mais foog nga yokk nga mbër liy dund si moom dafa bëri. yow est loolu moo la man lii dund si man dafa bëri man état bari bëri ñu fay nañ ma fis presque ay 5 millions et quelque duma si fere duma si def dara mais jëlu ma. doo ci fere doo def la pour nga bëree fii. pour ma bëree bari ñi. nga ma bañ boo bëree gu ma jéem kere état boobu Moussa lañ ma doon wax sax man ñëpp bëreewu ma. parce que mënuma jël sama combat ba pare di di romb ay nit di leen ameel bor di di laaxu non non damay dox si bi fu ma nee. tëdd noonu du ma. sa combat yaakaar la woon. sama combat papi général 500000 boobu du ma ko may Assane Ndiaye dara mënul tee ba ma may ko adduna du yàgg bu ma may ko comprendre nga pour ñi xam ne dañ may seetaan da ngay ñëw sax nit wax la soxla si combat boobu nga ne ko yoraguma sama combat dafa xaalis bi dafa des ah waay sa waay kii fay nañ ko xaalisam lekk na ko bu yàgg bëre dafa barki Seydina Mohamed bëre moom métti man ku ñëw si man na ma dama bëgg a doon bër xam la laa lay njëkk wa wax demal xoolaat sa bopp bu baax ko amul métier nag mën nga dugg si làmb mais ku am métier dama la koy waxaat toppal sa métier bëre dafa métti waxuma ko nag pour bañ ñu dugg si mais ku si dugg di nga ko am te saa ngay gis mbër am ay cinq combats six combats jekki rek taxaw dootul bëreeti déggoo ma de. waaw loolu. man am naa sama benn grand boo xam mu ngi Bargny mbër bu fi moo la ëpp fit mbër bu fi ne moo la daaxee mbër bu fi ne moo la gën a doon mbër muy yaadikoon comprendre nga mooy Doudou Faye numéro 2 teg na ne 3 victoire 3 victoire teg na ka mosul am défaite comprendre nga tey an moom bàyyi na bëre mu métti dëkk bi mais li mu si daj si ay coono moom moo ko xam gisa boo amee problème ñi lay topp na laan muñal muñal non dunduñu ko yow mi koy dund rek yaa koy yëg amaana nag dinañ la defal comprendre nga na laan amul problème mais li si métti yow yaa koy dund dafa métti de bëri lu man dëkk bee tax mënatuma dellu gannaaw déggoo ma de sañatuma tukki daw sañu ma ko mais bu doon daw rek bi ma demee Espagne gis naa fa ay liggéey mais sañu ma liggéey. comme li mbëri def léegi dem États-Unis toog sañu ma dem Espagne di liggéey aw ma fitam dañ may wax liggéey mën a mukk li ma bàyyi bari ñi moo ma intéressé parce que lu tax dëkk bi dañ soxla ndam dëkk bi dañ def leen mbër da ngay wax ni sax mën nga bari ñi comprendre nga te yàlla forcé la fi teg ma topp si gannaawam ay booyaa ngi si gannaaw comprendre nga mais si biir loolu. Forza man bu Fass. waaw moom fii la dëkk seen kër mu ngi fii si ginnaaw. moo koy nuyu ma war ko seeti sax Forza jaar naa la bu baax. est-ce que nga kon loolu bu amee tamit bëre bi métti booy boo amee combat. saa da ngay toog cinquante mille saa duñ la ko dimbale. waaw mooy da fii bari ñi tey da ngay gis benn mbër boo xam ne tey mu ngi fi di bëre di di di di di faytin day am combat du du maanaam luñ koy dimbalee du mat saa cinquante mille mais da ngay ne kii day sonn si li làmbam may wax mbër yu ndaw yi ñu góorgóorlu di wax monsieur le maire mu mu gën a jàppale mbër yu ndaw yi fi ne. monsieur le maire Guèye Abou Ameth Seck ma lay wax ne ne nga gën a jàppale mbër yu ndaw yi fi ne. ma ci lancer appel sax parce que boo xoolee maire loolu lañ fi tegee jeunes yi lu ñu soxla wala waa gox bi lu ñu soxla nga taxaw ci. Hmm. jàppale leen muy sport muy culture ak lu mënti doon. Hmm. ñoom yaakaar loolu lañ fi tegee kon dañ cee war di jàpp bu baax a baax a baax a baax gox bu nekk ka fa nekk war naa jàppale waa gox bi ba waa gox bi du ñu sonn ci lenn waaw. tey monsieur le maire parce ma ko dalee ñaanteel léegi mu ngi waaye mat mais tey yàlla dimbal na maay fayitin ba jënd suma yëfu bopp di tabax comprendre nga yàlla mu may suturaal ci làmba mais tey dangay dem caara yi ñu ne la seen maire may na leen exemple ku si ne trois kër mbër mu ne wala deux kër comprendre nga nga nga nga xool sa maire dëkk mooy la dara mais loolu day métti te li mu ñuy dimbalee si làmb ji lañ koy dugalaat comprendre nga après dañuy soole terrain ëllëg parce que tey bëgg nañ buñ la màgg bay tollu na fi suñuy doom ñu am fu ma leen dugal. kii toog kan la. kii mooy Madjer suma xarit suma mon ami moo frère di ka wax ne ne kii aw ma lu may wax si moom parce que suma nit la te yàlla xam na ko mosul lekk suma 100 francs dama koy wax mu leer si site internet laay waxee suma 100 francs mosu ko lekk di ànd ak man te yàlla te aat ah, ñi topp si gannaawam te am na nit ñoo xam ne xaw ma leen moom moo leen forcé coince ma siy nuyu sam benn ko sax maa ngi koy gis fii muy bas comprendre nga loolu tamit ma ngay waxaat ñi nga xam ne xaw leen moom moo leen forcé coince comprendre nga bon kii aw ma fayam ba pare créé benn benn fan club jam ñaajo loolu may nuyu fan club bi ñëpp du ñëpp sax laa xam nga xam ne loolu doy na waar. Mhm. jàmbaar nuyu naa. Ah, ñu ngi lay fay Fall. yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. naka seen bërëb. waaw kontaan nañ si kontaan nañ si bu baax c'est parce que kii li ngeen ko defal defalu leen ko ko quoi c'est parce ñun bëgg nañ suñu doom. wala suñu xarit wala suñu mbokk wala suñu am di jàmm fi ñuy teg nit ñi seen bët ñoom ñuy moom mu yegg fu ko raw moo tax li ngeen ko def nii du moom ngeen ko defal te parce que ñun bu ngeen ko defalee lii ñun suñu sag la ñun ñooy dem dëkk ci yeneen dëkk yi ñooy jóge fii Bargny fii dem ci yeneen dëkk ne waa diw de defal nañ ko émission nangam naa émission bu ñu mën a tourné damay jël seen émission wala ma téléchargé ko sama gaay bu ñu ñëwee ma tegal leen ko sama place. comprendre neen waaye lii de émission la woon nangam ak nangam coente bi nangam ak nangam dem ba gars yi nga xamante ne nii ñoom laa nekkal biir jam ñaajo Bargny laa dëkk quoi. mais tey ji boo demoon jam ñaaña amul même bëy yi foraatu foofu ñam yi ñuy jaay foofu boo leen laajee ana matzer ñu yóbbu la te defuma fi maximum quatre ans laa fa def fii laa quitté bàyyi fi lépp dem jam ñaaña toog fa mais ñëpp ànd ak man ci bëgg gi ma bëgg kii. ñu gis leen ngeen yomb moo xamante ni fu mu jógee ñëpp jóg mu ci wàllum supporter ak lépp nu ngeen waajee su ngeen amee combat. xam nga benn problème dafa am mooy que ñun mm, Quench bi mu première sortie dafa daanu. Mhm. mais bu fekkee cent personnes ñoo dem stade première sortie bi mille personnes ñoo dem ci deuxième combat bi. lu boobu. pour pourtant bi mu demee dafa daan mais bi mu delloo lii keroog li ma gisaat stade gisuma ko woon ci première bi mais da di ñun lébu yi ñun suñ jëmmi bopp. ñun suñ jëm boobu neewal keroog loolu laa doon wax un jour ci benn waykat Momo Dieng mu ngi dëkk fii à côté. Mhm. dama ne bu taxawoon ci kaw télé bi ci kaw télé bi di wax duul duul duul dañuy dem seetaan dañuy dugg dañuy paas dañuy jënd c'est parce que ñun ay lébu lañu yëg-yëg bi rek lañ soxla ci doomu aadama. te jii suma la wanoon ay photo wala dara nga ne voilà mu ngi nii maa eh Mbaye ñëwal jour temps eh diw ñëwal jour temps Quench ñëwal gars yi nañ fi daje mu ñëw te pourtant mënoon na maa xeeb. yëg moo solo ci. waaw léegi nag loolu noonu man moom nit li nga leb la lañ lay fay amul dara loolu la rek da ngay lebale lii juróom ñu fay la ñaar fukk. mais mosoo gis ku leble lu baax ñu fay la lu bon bu fekkee ne lu bon dalaa wuy se da ngaa yàkkamti rek comprendre ñun daal liñ koy ñaanal mooy na ami combat ñun ñu ngi ci ginnaawam waaw man fu combat taxawee ma woo sama gaay gaay tamit mosuñu maa taxamlu muy ñoom ñu ngi doon dégg ay bàcc ay bas ay mbay comprendre doo ñoom ñëpp plus de vingt personnes wala personnes yoo xamante ne nii bu xamee sa waay grâce man mais ñu accompagner ma même ñenn ñi billaay dunduñu làmb affaire de football yi la ñuy dox mais xoolal da ngay ci ñoo jàpp li ñu ciy jàpp yow. waaw xam nga nit ki li li nga ji rek moom ngay góob tey jii dañ ma mën a ne booy Quench day bëri ma ne ah affaire de lamb yi intéressé wu ma nit ku nekk sport bi la intéressé man du ma seetaan football xaw ma bu zóor zóor yi Messi laa xam comprendre xaw ma keneen mais mais Mbaye Diagne mooy nit koo xamante ne ni man mu xaw fu ma koy teg moo tax peut-être yëg-yëg boobu am ci moom moom la man nit ñi dello comprendre kontaan naa ci yow. ok jërëjëf. Quench looy tàggatoo. waaw lu may balaa ngaa tàggatoo la mu andi turu Quench. waaw turu Quench ma lay su ma benn copain muy arafo kooku xam ne ne amul si man sogo kooku lu ma neex laa kay wax lu ma neex du mer saa damay waxaa moom yenn yi sax sama soxna day mer da war a kii ci li muy ci yow nii na saa day ñëw suma kër mën nga génneel si biti da dañuy nelaw comme lu ma neex laa koy wax te du mer te fu may bëree dina topp dëkk bi di ket. maanaam dina indi si man cent cinquante mille yoo xam ne du ma xam fu mu jógee boo naka si woon jënd si bu vingt cinq du ko jënd comprendre nga tey am na am na sam benn copain bu amoon te du man rek la kay defal am na sam benn copain bu amoon combat ñuy dem di ket ma ne ko damaa xiif entraînement la ma jógee deux ans pour ma jënd ñaaba soo mun a ma mukk lii dara du si jox ma koy nuyu passage di ko ñaana li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko comprendre nga sama gars yi ma fekk fii ñu mel ni ñoom bii waa Mbeleka Jaw bi yëpp ñoom Moussa Ndoye comprendre nga ñoom Jean gars yi di leen bëggee di leen siyaar di wax ne ne góor gi nga xam ne moo ñu dajale fii ñu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana fii taw si li li mu bëggoon si njabootam yàlla teg si loxoom ba eh, bu ko yàlla naka sa njabootam gi mu kontaan ñu ko koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana taw si ah fa fekk ñi may li may tëjee mooy di gërëm suma jigéen yu yànje yi di leen gërëm di leen ñaanal parce que man bari ñi la benn bopp la bari ñi dañ na benn buntu la am si ngay duggee si ngay génne. comprendre nga ñun ñëpp koo fi dem ñu ne la yow diw yéen a bokk maam sàngam ñun ñëpp ñoo bokk te su may fan sax ku ma si teseel mën naa la waa kii diw la tudd comprendre nga. ñëpp tollu ñëpp. ñëpp ni ñu toll ñëpp dëkk yëpp laa wax ku ma si teseel dinaa na la kii mooy diw te loolu sant yàlla la man ñi may su may fan su may sœur la su may frère su may grand su may pap comprendre nga su may ndijaay su di may nuyu grand Moussa Gueye moom mi nga xam ne ne kooku kooku laneen la si coins kooku kooku du ma wax si moom may nuyu tamit ay soxnaam Safia maam Faat kooku Moussa Gueye mënu ma sori si moom kooku leneen la si man. kon sa am na waykat. waa am naa waykat. koy déglu. waa guddi ñu nii moom Wally lay déglu man dongaloo mooy woon suma waykat mais instant yi nii nii non Faramareen bi instant yi nii mu ngi ñuy rey quoi. Ah, kon moom ngay gét quoi. waaw instant yi moom bi rek laay gét nii. di nga dem soirée. waaw parce que par temps nii ki ma lay wax nii grand Moussa Gueye moom saa day jekki nii rek na ma nii non dama war a jekki sax njaab soirée waal yi xam nga rek mooy loolu muy grand bu woyof boo ko fekkee da ngay yaakaar sax kii yàlla deful si moom teraanga. lan mooy sa man moom lu ciin bañul bañu max. waaw. baadu oto nga dul lekk. ah déggoo lu ciin bañul man bañu max parce que man dama doon xale teel a tumuraanke si ma àdduna man dama koy wax fu ma toll damaa doon xale tu tumuraanke te samay waajur ñu ngi fi ñu may néewal doole te sañu ma ko nettali parce que bu ma ko nettalee bu ma demaatee si géej gi am lu ko gën a métti. mu ñëw dugg si diine lislaam Christ moom loolu la ma deseel du leneen saa yu ma jullee damay ñaan mu tuub parce que mooy loolu jàmbaar la te bëggeewu ma ka dara du football bi mais njàmbaar gi mu siy wane bu dugalul saa day mer kooku kii tëb ba taxaw si kaw air bi di xaar bal bi. kooku la ñuy waaw kooku moom may football moom kooku ma si lii deuxième partie bi mooy bu dee basket James moom laa si suivre waaw. comprendre nga ah ñi nga xam ne su may gaayen lañu mooy Moussa Samba ah ki nga xam ne mooy euh, ki pen tamit ñu gën nga xam si Moussa Diagne ñoom ñaar ñëpp Moussa lañ musaa Samba musaa Diagne bu may siifaraat basket ah Pamor bu Mbuur ñooñu ñoo ma dugalaat si basket ma koy seetaan mais si ñooñu laa xool ba bëgg a ma leen di ñaanal ñoom fii jëm si toll ñu romb ko tamit comprends nga. baax na kontaan naa ci yow. waaw di nuyu monsieur le maire di nuyu Ibrahima Seck gars yi siy jàpp ñëpp di leen wax ne ne émission bi daf ma bett si ñaanu ñaan la ma fekk muy Madjer la ñu ñaanal papaam ñu ñëw fi seet ma tamit tey làmb dafa am statut bas ñi gars yi ñëw na nañu seet sa coin sa mais du ma leen daw pour ko gis émission bi nga xam ne nit moo matul comprendre nga yii nag site internet yi. mënul ñàkk ñu ñëw gis seen copain seen xarit muy Quench ñu ñëw seet si ko saafante moom yendoo moom mais lii su ma. wax na dëgg tey sëñ Modou Niang moo tëgg fii ñu fee ñëw moo tax ñu nañ fi jaar seet si waalo ku ñu seet si ko mu jox ñu añ ba suur naan ba mandi toog waxtaan ak moom boo fa jógee dem stade noonu la demee pour ñi nga xamante ni dañuy seetaan ñu ko gisee. bu mu leen du lu du luñ programme sax nag. waaw loolu laay waxaat parce que saa da ngay tourné émission gis nit waaye waxoo ma ko yëgoo ma ko su yaay yëgu ko su ma papa yëgu ko barke Serigne Babacar si suma yaay yëgu ko su ma papa yëgu ko amul ku ma jege ku yëg lii pour ñoom ñu xam xam ne ñun lii lañ am émission yi lañ xam pour wax si suñuy soxla mu jàll. comprendre nga du ñu am combat du ñu dem si yéen pour ngeen comprendre ñu si émission yi nga xam ne dañuy ñëw fekk ñu fii c'est normal parce que ñoom ñun mënuñu daw ñii ñii mënuñuy daw. si suñu image ngeen di liggéey ñun seen tale wala seen i site si la ñuy waxee suñuy soxla mënul ñàkk nañu gars yi comprendre rek te xam ne ne adduna moo demee nii may nuyu waa Diamniadio sama fën sa club bi fa ne di nuyu suma soxna di nuyu suma yaay di nuyu suma papa di nuyu suma am di jàmm yëpp di nuyu suma staff di nuyu ku mel ni Moussa Ndiaye Serigne Ndiaw allah comprendre nga mbay Mbaye eh, Thier mu nga ba ma ngay siyaar gannaaw am naa na mën naa lu bëri liggéey moo la yóbbu foofu yaa na yàlla doole sutura di nuyu suma staff di nuyu bari ñi gépp bari ñi moom ma kenn bari ñi gépp laay nuyu nuyu Djibril Faye monsieur le maire Guèye Abou di nuyu ki nga xam ne mooy Amady di nuyu Tamsir Meng comprendre nga di nuyu Adama Meng di nuyu bari ñi gépp bari ñi daal aw ma seen fay. lim juum nga xam ne fàttewuma la lim bi moo si dul xaj comprendre nga may siyaar ñëpp di jégalu bu baax nag ku koy yëgul nga xam ne ne. nii la demee woon ñëw nañ fii làmba ñëw seet ma ñu tourné émission bi kese. di leen wax ñoo ngi woon fii baat ñi seet si Quench di leen ñëwaat seen benn émission ziar mbër seet waat keneen jaajëf.